الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله سبحان ربي ذي المنن والآلاء المستحق لأعظم الشكر المستحق لأعظم الشكر wa ashhadu an laa ilaha illa allah almunazzah an al andaadi walshuraka wa ashhadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bilhuda wa diini alhaq salla allahu alayhi wa alihi wa sallam fa yaa cibaad allah uusikum wa nafsi bi taqwa allahi alazim ittaquuhu fi anfusikum wa fi masuliyaatikum inna kulla lahdatin min lahadati xayaati almuslim tatajassadu fiha almasuliyatu bi kulli suwariha afraadan wa mujtamaatin shucuuban wa xukumaat inna alislaama jaa wa aqarra ashuura asaasan lilxukmi alislaami yaquulu tabaaraka wa tacaala walladina stajaabuu lirabbihim wa aqaamu assalaa wa amruhum shuuraa baynahum ومما رزقناهم ينفقون أيها الإخوة العلماء في حكم المشاركة في الانتخابات له حالتان الحالة الأولى إذا كان نظام الحكم إسلاميا وانقاد لحكم الله في قوانينه وأحكامه وكان المنتخبون يحملون المواصفات الشرعية لأهل الحق الحل والعقد كالعلم والعدالة والاستقامة والرأي والحكمة فالمشاركة فيها من الشهادة يقول تبارك وتعالى وأقيموا الشهادة لله وأيضا لإيصال الأمانة لقوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الحالة الثانية أن يكون نظام الحكم غير إسلامي كالنظم الوضعية فقد اختلفت أنظار العلماء المعاصرين فمنهم من رأى الجواز إن كان يحقق مصلحة شرعية راجحة ويخفف الشر والظلم عملا yàlla gi ñu génne te mooy julli gi julli euh, te mooy tabaski bi euh, di lu am solo loo xam ne day wane rek ne jaamu yàlla dégg ndigal lu am solo la ndax loola lañuy fàttaliku ba ñëpp bokk ci xeet yi di ko def ba addinay tukki ngir fàttaliku nangu ndigal kon loolu mooy wane ni ndigal am na solo nangu ko am na solo kon ñu ciy ndokkeel jullit yépp di ñaan liñ ci def lépp yàlla na ko sunu boroom nangu bokk yi nag tomb bi ñu bëgg waxtaane tey mooy ñu xam ne doomu aadama lépp lu muy def am na ci responsabilité moo tax bala mu ko def war na cee laaj lan la ci sunu borom subhanahu wa wax xam ngeen ne àdduna bi mënuñoo dund rek te duñu am ay ñu nuy atte ñoo xam ne ñooy ñoom la ñuy dénk dénk ñu di doxalal sunu mbiri àdduna kon loolu nag lislaam àdduna ci ndax lislaam ci lépp lay àddu moo tax mu wax ne diisoo mooy mooy mbir mi lislaam bu ñu dee wax ci ab àtteem ci lu mu tege mooy diisoo diisoo nag sorewul ak lii ñuy tuddee assemblée nationale te mooy fi nit ñi dajaloo ku ne yebal fa sa ndaw nga xam ne yaa ko wóolu tànn ko mu dem fa suñu waree waxtaan ñu diisoo ca ba déggoo ca mu mën a doxal suñuy mbir loolu alxuraan wax na ko wa amruhum shura baynahum te gis ngeen ne baat boobu bi mu koy wax daf koo dugal ci diggante julli ak def ci yoonu yàlla kon mooy lu ko lu ko ñor la xam na ne ci la bokk mënta ñàkk ndax mooy tax dund gi aw yoon mu mel ni kon euh, liñ ciy war a wax rek mooy boroom xam-xam yi nag dañoo wax ne ñaari mbir moo ci am su fekkee njotaay booba lañ fay àttewoo lislaam rek la duñ fa doxal lu dul ay luwaa yoo xam ne ci lislaam lay sukkandiku ñañiy tànn di leen fa yebal itam dañ leen teg ci nattuwaay yoo xam ne nattuwaay yu yu nag diine nangu la mu mel ni xam-xam ak maanute ak njub ak am xalaat ba pare am xikma su fekkee nattukaay yooyu lañ leen di natte su boobaa yenn ci borom xam borom xam-xam yëpp dañoo maase ci ne loolu moom mënees ca ñàkk a bokk mënees ca ñàkk bokk ci tànn ga tànn koo xam ne moo fay teew te ñu tànn ko ci nattukaay yu mel noonu ndax day mel ni rek mooy nga tànn gi mooy seede la ci ne kii moom jubu na ma wala kii wala kii jubuwuma la ca des itam mooy day mel ni da koy dénk kóllëre kaa kaay demal nu ci barab sàngam la mu doon sunu ndaw kon day mel ni lu ci nekk yàlla wax na ci lu mel ni mënta ñàkk waaye tomb bu dee meneen mbir mi nag te mooy li ëpp ci àdduna bi te moo di ne doxaluñ fa lislaam am foofu nag boroom xam-xam yi dañ cee wuute am ñoo xam ne dañu ne ah lu mën a xew warees na ci am warees na dagan nañu bokk ci su ci sartum nag suñu gisee ne suñ ca bokkut am na euh, lor joo xam ne loola mën na koo andi loola bokk ca dajaat yi war su fekkee na itam bokk ca mën na andi njariñ su boobaa day am solo pour ñu bokk ca kon la mbir ma di ñàkk ñàkk tege ci yoon du ñaa du tee dagan na ñu bokk ca donte attewuñ attewu lislaam te kon mooy sunu réew yi ak réew yi jullit yëpp presque yi ci bare bari soo ci génnee lu néew ndax yàlla moo wax rek ne lu waaye di li ñuy def nañ ko defee niñ ko mënee rek ñu wax ne niñ ko bëggee la ni bëgg yee ko yàlla bëggee loolu yombul te mooy ragal ko dëgg-dëgg ragal waaye dañuy xool la mën a am te mooy mastataatum ittaqullaha mastataatum ñii wax ñenn ci boroom xam-xam yi foofu lañ sukkandiku ne dagan na am ñoo xam ne nag dañoo taral ñoom ne loolu moom kenn waru caa bokk ndax day indi ay yàq rek day tax ñu ñu tànn fa ñoo xam ne meluñ lañ war a mel suñu demee itam lañ fay woote ak lañ fay def dara du ci jaar yoon waaye jàpp nañ ne ñoog ñu bari bu ñu sukkandikoo ci boroom xam-xam yu mag yi jàpp nañ ne xalaat bu jëkk bi moo moo gën a jub te mooy dagan na ndax su fekkee ne dañu ne foofa ñun buñ duñ ci bokk duñu tànn te duñu nangu itam ñu tànn su ñu baax ñëpp waxee loolu ab sa ña sa ña mel neneen rekk ñoo fay dem te lool su boobaa mooy li ñu bëgg a soppi du ma sa soppiku kon mooy ñu baax ñi faaw ñu tànn leen waaye faaw itam ñu baax ñi nangoo dem ñu bokk ci ñi leen ñi ñi tànn ndax bu dul loolu ni ko waxee ñeneen ñoo fay toog léeg-léeg itam mën nañoo wax ne waaye ñu baax ñi ñu ciy tànn du yomb benn nit boo ko tànnee bu baax boo xam ne bu demee moom rek lay doon ña ca des ñëpp ñëpp ëpp la ñuy def safaan ba lañuy def kon jëru ko baatu jëru ko boobu ëpp naa wax ndax kenn kooku ku baax kooku sax baax na na fa nekk rek ndax su fa nekkee te yàlla def ci moom barke dana fay wax loo xam ne mën naa jubbanti lu bari mën naa soppi lu bari mën naa tax itam eh, lu baree bari bu ñuy bëgg a def mu bu ca duggee mën naa tax ñu bari deltu ca ginnaaw kon kenn kooku ëpp naa xeeb donte kenn ku baax la nañ ko tànn mu dem fa kon nag yow mi tànn xoolal bu baax ki ngay tànn mu bokk ci koo xam ne rawatina nag adduna bi bi ñu nekk li tax ñu ne jàpp ne xalaat bu njëkk bi moo moo ñàkk mooy ay élection mooy bunt bi bi nga xam ne moom rekk fi des ci àdduna pour àgg ci ci wàllu nguur walla saytu kon mu mel ni soo nee duma jaar ci bunt boobu boo moytuwul beneen bunt ba ngay jaar ay jafe-jafe rek lay indi kon faw ñu tànn yoon woowu dox ci ngir mën a àgg fi ñu jëm ndax nag loolu mooy tax maanu te am ginnaaw boobu bunt rek mën a tax nga wax li nga war a wax te sañ koo wax te wax ko ci yoon sañ koo def itam te def ko ci yoon kon day mel ni boobu buntu ëpp naa wax ne duma ma fa jaar bokk yi nañu xam ne suñu demee bay tànn nag te xam ngeen ne jamono ji ku ne nee nañ mi ngi taxaw ne nañ ma tànn ñun nag suñu demee bay tànn nañ ci bàyyi xel ndax suñu responsabilité am na ci am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne rek aw xob laa yor fu ma ko sànni baax na loolu ëpp naa wax ëpp naa wax responsabilité la sunu borom dafa wax ci alxuraan ne képp koo xam ne jàppale nga ko ci mbir mu tamit ab safaan nu mu cay jëlee danga ci am sa koo jàppale ci lu baax it ba mu tam cay def lu baax yow itam danga ci am sa ginnaaw nag loolu lépp sa am na ci ndax loolu mooy diine responsabilité la dara du ci du ci du ci neen ndax dara yàlla du nen kon looy def faw nga natt ko ki ngay tànn nga tànn ko ci anam yooyu waaye booy tànni li tax li tax nga war a sedd tànn gi yàlla def sunu sang muhammad alayhi salaatu nee na soo demee bay yàlla dafa bëgg nit ku ne lañ koy def loo mu man ko xereñe ko waxul yemul ci man ko rek waaye nee na na ko xereñe mooy na ko man man gu rafet kon ki ngay tànn war ngaa laaj ba xam ndax fee mu jëm lañ ko fay dewee man na ko fa wala déet kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la euh, am na feneen nag foo xam ne fa la yonent bi gën a leerale sax biir yooyu dafa wax ne koo xam ne da am benn sañ-sañ ci mën a def nit kilifa mën a tànn nit wala man koo teg ci barab nga tànn keneen koo xam ne li tax nga tànn ko mooy sab soppe la moo xam lu leen boole aw askan aw deret wala leneen ak leneen moo leen boole ba tax nga ne moom laa koy jox walla boog ak cofeel la dox rek seen diggante mu ne ñaari yooyu lu mu ci doon te fekk na bi ngay tànn kooku xam nga ne kii moo ko gën fuuf waaye kii nag mooy sa xarit mooy sa mbokk nee su boobaa war nga yàlla war nga yonent bi war nga jullit ñi mbokk yi loolu nañ ciy bàyyi xel bu baax loolu ay critères la yoo xam ne ab jullit moom sañut a def nu mu ko neexee waaye lu muy def da koy def ni ko yàlla bëggee kon nag ginnaaw mën nañ caa dugg buñ cay dugg nañ ci ànd ak pas-pas nañ ci ànd ak responsabilité xam ne du rek aw xob bu ñuy sànni waaye nañ xool bu baax ki ñu ko sànnil kan la waaye bokk yi jamono bi ñu toll nag dafa mel ni dañoo toll ci li ñuy tuddee campagne électorale kon ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoo ngi ci terrain bi di dagaan kàddu askan wi ginnaaw bu ñuy waxee askan wi ba pare ci ni ñu war a tànne ñoom itam ñu ngi leen di ñaan nañu fexe ba violence bu mu ci am moo xam ci ay wax la moo xam ci ay jëf la te mel na ni ñu ngi tàmbali di ko dégg fii ak fee nañ ci bàyyi xel bu baax jàmm ci la lépp xat xaj sëriñ Touba nee na woon jàmm moom xamul lu ko gën fii ci àdduna ak alaxira te yitam lépp lu waaye di wax ba ñàkk ko lu ne mën nga koy jaay pour wuti ko kon nag jàmm jooju nañ ci góorgóorlu ku ne bay ci sa wàll kenn ku nekk itam bañ koo joxoñ sa moroom naan kële la waaye ku ne na nga xool yow sa bopp tàmbale sa bopp bala ngay tuumaal keneen kenn ku nekk góor góorgóorlu ci ñi nga xam ne daal ñi nga looy def nga wax ko ci yiw defe ko ci definu yiw bañ a yàq alali kenn bañ a tooñ kenn la ja des itam mooy nañu moytu ci discours yi di wax loo xam ne bokkut ak ni mu demee jël jël diw di ko tagg di ko yëkkati di ko jox melo wu mu melut ngir bëgg rek mu am li bëgg ndax xëy na am nga leneen loo séq ak moom kon ka ñuy tànn nañ ci moytu lu mel noonu bu baax a baax te mooy di ko jox melokaan yu mu melut buñ ko waxal lu melut bu mu waxal boppam nu melut waaye itam nañ moytu di yàq deru keneen ki ñu jàkkaar lool di ko waxal lu nekkul ci moom di wax sax li nekk ci moom ci ay sikk ak yàq ak yàq nañu xam ne jëw a ngi foofu rambaaj a ngi foofu yooyu yëpp ci la bokk te yooyu sunu borom daf koy tere kon daal ni ñuy wax léeg ñenn ñi di ko wax naan campagne civilisée loolu bu ñu koy wax lislaam mooy moo gën a xàll yoon wi su fekkee dégg nañ ko te jëfe ko nañ ci bàyyi xel bu baax xam ne yoon wi lislaam sa xàll buñ ci doxee kenn ku ne da nga maal sa morom kenn ku ne danga wax li nga bëgg a wax te doo wax lu ab safaan doo yàq doo yàq deru kenn nañu moytu itam euh, yàq yàq alal gi yàq alal gi ci biir lu mel nii léeg-léeg mu am ci tasaare xaalis bu du jeex yàq jënd yenn kàddu yi ñenn ñi nga xam ne xëy na sàmmante wu ñoog ma doon wax léegi nga xam ne ku leen ku leen ku leen ne nangami ngi nii rek ñu ne la sama carte ngi nii loolu itam nekkul loo xam ne lu rafet la léeg-léeg sax ni nga koy waxee fii ci naan sunu démocratie fi mu àgg kon defe naa lislaam bañ na ko waaye sunu démocratie bi ñuy wax itam ak fi mu àgg war naa bañ xeeti comportement yu mel noonu kon nañ ci moytu itam def ci lépp lu araam lépp lu araam ndax ñenn ñi dañuy jàpp ne rek suñu xasee dugg ci géewu politique moom lépp dagan na lu araamoon ca feneen day mel ni daa dagan foofu bokk yi li araam foo mën a nekk yow jullit bi dafay araam nga war koo bàyyi xel bu baax kon ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla na yàlla andi jàmm ci sunu réew ak ci réew jullit yépp ku ne xam na ne àdduna bi jaxasoo na loolu moo tax sax xam naa ni sëriñ bi doon joxe léegi ci turu alaaji jëwriñ jëwriñ alaaji mbàkk yi fay ngir ñu ñaan yooyu ñu war a def tàllal sunu loxo sunu borom ndax ab jullit moom su demee ba jaaxle daa war a dellu ci yàlla tàllal ko loxo ne ko yow rek yaay buur te yow rek yaa nu ci mën a dimbale kon nag ñu bàyyi ci xel bu baax ñu ñaanal ñi nga xam ne ñoo nu jiite itam sunu borom defar leen tàgg teg leen ci yoonu njub ba ñu mën caa jaar ci lépp lu ñuy doxal ñu ànd ci ak maanute ànd ci ak dëgg loolu sunu borom mën na ko yàlla na ko yàlla defal. ahmaduka ya rabbi wa astaciinu bika wa astaxfiruka wa acuudu bika min sururi nafsi wa sayyiaati alacmaal wa usalli wa usallimu ala saaxibi almaqaami almahmuud والسراج المنير وآله الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون يجب أن نعين من نرى فيهم خيرا لقول الله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها wa man yashfa safaatan safaatan sayiatan yakun lahu kiflun minha wa kaana allahu ala kulli cheyin muqita wa li qawli nabii sal allahu alayhi wa alihi wa sallam inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqina wa annahu man waliya min amri almuslimina cheyan fa walla rajulan li mawaddatin aw qaraaba wa huwa yajidu man huwa aslax faqad xaana allaha wa rasulahu walmuslimin wa fi ma yataallaqu biddiaayati al intixaabiya allati naxnu bi sadadiha huna fi baladina fa nuusi bi an laa yuraafiqaha unfun maddiyun aw maanawi wa an natajannaba fiha matxa nafsi aw matxa aaxarina bi fi ma laysa bi xaq aw ittaana fi aaraadi almuxaalif wa min israafin wa shiraa'i alaswaati wa irtikaabi almuharramaat allahuma aminna fi awtaanina wa aslix aimmatana wa wulaata umuurina